fukki fan ak juróom benn ci weeru juin atum 2022 xibaar ci kàllaama wolof ak Barthélémy Ngom asalaamaaleykum Barthélémy maaleykum salaam Georges ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem ñi ànd ak rajo Futur Média boobu ak léegi xibaar yi ñu tàmbale ko rassemblement coalition Yewwi Askan Wi gi ñu nam amal ëllëg préfet bu Dakar tere na ko Ousmane Sonko ak i ñoñam ne ba booba ñu xam moom njiital jiital Pastef ne dana kalaame ci yoon procureur de la République mi méngale seen rassemblement gawoon keroog ne insurrection ba ne am na rebelle euh, yu ñu njort ne daal looloo leen fi andi woon teg nañu loxo kenn ka wàllum mi santé ba tey mu ngi ci guddi gu setagul fédération Fédération des syndicats de la santé le 22 juin ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin daañu amal grève générale ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ba tey ci weeru juin ñu amal marche nationale nekkinu prestataires yi ci hôpitaux yi la bëgg ñu xoolaat examen scolaire yi muy BFM di CFE ñu ngi nekk di ko waajal ca Ziguinchor ak ca Diourbel kilifa ya fa ngànk njàng ma ku ca nekk ak wàll ca wàll wa nga féete yaa ngi jël yi matuwaay tàggat yaram des na ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne xibaari aada yi ana rocha yéene kay yëg Mamadou Mouhamed Ndiaye Barthélémy Ngom Abdou Thiam moo fare ci machine yi mbokk yi nu delloo nuyu leen dellu ziar leen it euh, tàmbali xibaar yi ca fële ca Sébikotaan lu yéeme moo fa am benn xale la ñu fekk mu ñàkk bakkanam ca benn bâtiment bu ñu doon tabax fekk yeggagul ca gannaaw cimetière ya police scientifique ak gendarmerie bu kotaan ubbi na ci enquête Abdou Diouf Diagne ñu ko doon wër lu tolloog daanaka ab bés Adama Diop nag mujj nañ ko gis wante dañoo fekk nag mu daal di faatu néewam nekk ci benn bâtiment boo xam ne dañu koy tabax ki gis néewu xale boobu nag di ki nga xam ne moom moo yor ba taw bi mujjee am nag ci région bu dakaar nag mel ne ci kaw xale boobu am juróomi at ci la wàcc police scientifique nag daal fay ñëw ngir daal di def constat bu njëkk bi gendarmerie bu Sébikotane daal di ci ubbi enquête njaboot gi guddi gi yëpp daanaka dañ leen koo déglu. dañuy daal kenn dëkk bi yëpp a jaaxle métti na trop trop trop si xale boo xam te juróomi at la am ñu ñëw def ko nii sànni ko si tabax lii moom dafa ñaaw ñu ngi ñaan état mu dimbali ñu si lii dimbali ñu si sécurité doole ñu si poste de gendarmerie yu ñu am sécurité ndax li yëpp see baax sécurité bu amul si dëkk rek ci fàttali nag dugguleet ñuy nemmeeku nag ay xale yu ndaw yu ñuy faat ci département bu Tëngéej bi ci mujj rek di Astu Njaay di gone gi nga xam ne moom la ñu faatoon ca Bargny lu ni tamit di fàttaliwaat askan wi yi nga xam ne nag moom moo nekkoon bébé Fallou Diop RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf euh, Diagne tey jii yemook euh, fukki fan ak euh, juróom-benn ci weeru juin ci la ñuy màggal jour bés ba nga xamante ni xale yi ci Afrique journée de l'enfant africain la ñu ko jagleel. waaye nag seetlu gi mooy ca Kolda euh, lu ëpp juróom benn fukki tout tànk ñoom ñu ngi amee feebar bii di trisomie 21 jamono ji nag euh, ñu soxla centre d'accueil ba tax nañu yëkkati kàddu sàkku ndimbal ci autorité Abdoulaye indi handicap wala feebar bi ñuy ne trisomie 21 wala mongol dafa di ab façon yi laago bu ñu bëri ci askan wi bàyyiwuñu si xel te pourtant am na ay xale yu bëri yi amee mongol fi ci Kolda lu ëpp juróom benn fukki gone yi amee feebar bi ñoo fi yeewoo maître Germaine kuréel bu ëmb bépp aji woppay mongol ci biir réew mi moo si rotal ay kaddu. mooy ñi ñuy woowee mongol ñooñu boo seetee ñu ngi bëgg bari biir Kolda parce dafa doon laago boo xam ni boo ko amee ca ba ngay juddu du lu ñu mën a faj day continuer di nga dem ak moom ba bés bala yàlla di soxla yaa ngeeg moom. lu gën koo bare ci xale yooyu dañ leen di faral di bàyyil seeni waajur te ci biir yenn njaboot yi xale yi dañ fay sonn lool mu waral ay kuréel yu mel ni vol de vision ak seeni projet Iyo Jofa ñu leen di jàppale Joseph parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne seen doom yi dañu am yu mel noonu waaye dañ leen di laax ci biir kër yi bañ nit ñi gis leen te lu mu leen di wax vraiment génn leen xale yi loolu kenn waru ci am gàcce kenn waru ci am rus euh, te yàlla def na aussi fii soo xoolee fii ci Kolda am nañ fi association boo xamante vraiment muy trisomie 21 vraiment ñoom taxaw nañu temm vraiment pour jàppale xale yépp ñoo xamante ne dañu amee genre feebar yooyu donc maa leen di ñaan képp koo xam ne gis na ne sa doom am na yooyu nga jege vraiment association boobu ngir seeni épanouissement yi lee xale soxla nañu ku leen tabaxaan fii ci Kolda ab centre yi ndal la ñëkk mën ñi nga xam ne war nañoo mën a jàppale ñu tabax centre bi ñëw leen ñu tabax. waaye laata ñuy am ku leen di tabaxal seeni centre bi la xale yi amee trisomie 21 te ñuy yeewoo fii ci Kolda ñoo nar a dund seeni métit ba ca kanam RFM Kolda. Abdoulaye Diallo wàllum santé ba tey euh, wér-gi-yaram bi mu ngi nekk ci guddi gu setagul fédération des syndicats de la santé ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin gi daañu amal grève général buñ ca noppee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ba tey ci weer wi ñu toftal ca ab marche national nekki nu prestataires yi ci hôpitaux yi daal la ñu bëgg autorités yi xool ko nu mu gën a gaawee euh, fédération de syndicats de la santé ña nga woon ca hôpital bu Pikine Ngouma ñan kenn ci moom kàddu kenn ci ñoom kàddu yi mu dénk ndongo ka te plan d'action bi moom tant que fayuñu contractuels yi seen xaalis moo d'ordre bi kenn du ko lever semaine passée on avait fait trois jours de grève muy soixante donc semaine bi port de brassard rouge la dinañ def ay assemblée générale si yenn secteurs yi ba pare aussi dinañ euh, def euh, benn grève de soixante-douze heures la semaine prochaine mooy les vingt-deux vingt-trois et vingt-quatre et en même temps ñu ngi prévoir def benn marché national le vingt-neuf boo xam ni bëgg nañ fu nekk si Sénégal même boo mënee indi sa doom bu dëgër sax nga indi ko ñu àndandoo si marché bi ba dimbali ñu ñu protocole bi ñu signé woon ak état bi nga xam ni dañ ñu bëgg sunu base yi muy sunu militants yi di contractuel établissement public de santé contractuel ministère yi mooy aussi ñi nga xam ni tey mooy collectivité locale universitaires yi aussi ñi nga xam ni aussi tey ñoom ñoo maanaam am li ñuy wax contrat ISMEA contra JICA kon donc ñoo ñëpp si protocole bi lañ bokk parce que protocole bi dañoo signé woon loo xam ni tey mooy augmentation des salaires ñu dem xeex ba ñu xaw ñu yokkal tuuti mais si kilifa ñu signé dañoo gis ni gouvernement bi respecté loolu te nag lii ñu nekk nii arrangé population bi arrangé hôpital yi ñun jël nañ suñuy responsabilité mooy si li ñu nekk nii état na jël ay responsabilité ba fexe fay contractuels yi seen xaalis ñu wax ci leneen mu di union nationale des travailleurs de la justice ba mu sosook léegi nu ngi nekk di xaar seen récépissé di ko xaar nag ci ministre de l'intérieur boobaak léegi ñu ne mi dafa mel ni dafa taggaté mbi xamul li ko waral Thiès euh, moom syndicat boobule ñu ngi ñaawlu anam bi ñu yoree lii di fonds commun yi ba pare it di bëgg bëgg nañu ñu jox leen ay indemnité yokkal leen seeni peyoor Abdoulaye Diallo. syndicat ci régime déclaratif la bokk fii ci Sénégal muy li nga xamante ne ñii di waa Union nationale des travailleurs de la justice lu ñu respecté la waaye ba tey mënuñu fexe ba am seen i récépissé ki ko xamle mooy mettre Abdoulaye Mboup. Union nationale des travailleurs de la justice créé notamment au niveau de la police, au niveau du parquet, au niveau de l'inspection du travail. Phase yo yeb réussite avec brio, modeste, tout juste une reconnaissance venant du ministre de l'Intérieur. Depuis lors, malgré suñu interpellation yi ñu def yépp mu téye ko sans justification aucune. ñii waa Union nationale des travailleurs de la justice lu ñu bëgg tam mooy rek ñu yokkal leen ay indemnité ngir rek ñu mën a def seen liggéey comme ni mu ko waree. am na suñu mbokk liggéeykat yoo xam ne dañu doon ñaxtu. mu yokkal leen ñoom ñépp seen salaire ñu koy rafetlu muy enseignants yi muy waa santé. waaye dafa fàtte waa justice. damay fàttali que la force vive nga xam ne ñoom ñooy les travailleurs dañoo nas côté boobu. leneen lu ñuy laajte mooy ñu gën a valoriser seen statut ndax toog nañu lu ëpp fukki at ak juróom-ñaar mënuñu def concours. muy loo xamante ni da leen di tardeel bu baax a baax ci seen liggéey. sur le plan statutaire toog nañ ñun greffier lu lu jot 17 années def ñu benn concours li bu continuer mën nga nekk greffier à vie alors que y a des yoo xam ne dañ ko prévoir pour que greffier bu toogee au bout de cinq ans mu def lu ñuy wax concours greffier en chef par la suite ci la benn décret bu changer le corps des des greffiers en chef yóbbu ko def ko concours ADG. ñii di waa Union nationale des travailleurs de la justice lu ñuy ñaawlu tam bokk na ci noppi bi nga xamante ni kii di ministre de la justice def na ko ci seen revendication. muy loo xamante ne ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ndax nee nañu fii ak ay fan nguur gi bu antuwul ci seen difficulté ñu dem grève ngir rek wone seen métit ñu wax ci beneen secteur mu di njàng meek njàngale mi examen scolaire yi xam ngeen que ñu ngi koy waajal mu di BFM bi rawatina euh, fale ca Ziguinchor nag kilifa ya fa ngànk euh, njàng mi moom ñu ngi nas yi pexe ngir euh, bañ rek ay tolof tolof am ci rawatina BFM beeg bac bi nga xamante ni njort nañ ne dafa nar a méngoo euh, ci loolu nag euh, Cheikh fay di inspecteur d' académie bu Ziguinchor nee na ñu ngi ci tàmbalee jëli matuwaay la ñu teewlu kook Lamine Ba. gis nañ ne mun na am bag bi am chevauchement ak euh, BFEM bi day loolu day laaj ay lim ci ay correcteurs yu xaw a takku mais loolu IEF yi nga xamante ne ñoo ñoo am responsabilité boobu euh, digal naa leen ñu def en sorte que ñu bañ a convoqué ci ñaari examen benn correcteur benn enseignant maanaam dañuy jël lim euh, enseignant yi war a dem BFEM ñu affecté leen BFEM jël yeneen lim yoo xamante ne dañuy dem bac ñu yóbbu leen bac campagne électorale bi ci leen jëm BFEM bi surtout nga xamante le 21 lay commencé alors pour bañ mitin yeeg yooyu perturber xale yi suñuy def seen examen gouverneur joxe na ndigal préfet yi pour que ñu organiser ko fépp foo xamante ne centre la nga xamante ne élèves yi ñu nga fa di def examen ñu bañ a amal lu genre mbumbaay yooyu ak coow yooyu autour des écoles pour mun a permettre xale yi ñu def seen examen ci ci dal xam nañ ne ay fi fii Ziguinchor tàmm nañ di amal ay examen ci nawet bi donc ay problème yi taw dañ ci teel a fagaru mooy dañuy jéem a xool école yi nga xamante ne dañuy am inondation yooyu école duñ fa amal examen bi mais itam li ñuy faral di saytu mooy li ñuy wax étanchéité maanaam est-ce que salle yi dinañ senn wala duñ senn dañuy wax également directeur yi ak chef d'établissement yi ñu def réparation yi yi war yépp pour que euh, courant bi am gouverneur jox na ay ordre waa lekk ñu def en sorte que mu bañ a am coupure mu nekkoon euh, Cheikh Faye di euh, inspecteur d'académie bu Ziguinchor ñu dem ci beneen euh, circonscription mu di ca Diourbel foofu it examen yi ñu ngi koy waajal CFE bi daana ko amal lu lu ko dalee le 22 jàpp 23 BFM bi nag euh, li ko dalee ñaar fukki fan ak benn ci weeru euh, juillet euh, la ñu koy amal limub candidat ya nag ëpp na juróomi junni inspecteur d'éducation ak saytu it wàllu formation mu di IEF ba nee na centre yi daanaka noppi nañu ngir dalal candidat yi bu dee nawet bi nag ñu ne jël nañ ci ay matuwaay yawar yanko ba masali kàddu yu mu dénk Alimatu Sarr liggéey la boo xam ne liggéey bu am solo la ci dundu école que école la dafa am ubbiti école am jàngale am tam xayma lu xale yore loolu lu am solo la xool yan gàllankoor lañu am yan euh, bëgg-bëgg la ñu am pour que liggéey bi jaar ay yoon te waxtaan boobu lañ def tey relation macha allah bépp bu may wax yow am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que liggéey bi door nañ ko depuis ay semaines ñu ngi waxtaan euh, ak directeur d'école yi war a dalal candidat yi di waxtaan ak partenaires yi di xool anam yoo xam ne war nañ ko mën a doxal si en tout cas ndigalu suñu kilifa yi nekk si kaw mooy ministre de l'éducation directeur des examens et concours ren dëgg amoon nañ ci tànge si li ñu loo xam ne jotoon nañ ko vivre ak examen yi waaye macha allah fu mu ne nii euh, liggéey bi mu ngi jaar yoon te am nañ ci yaakaar centre yi noppi na ñu ngi am fanweer ak ñaar centre pour euh, BFM pour CFEE ñu ngi euh, xayma fukk ak juróom-ñetti centre xam ne xale yi fa la ñu war a mën a def seen examen examen te centre yooyu wax dëgg yàlla nag information ñu am fu ñu toll nii mooy centre yi mën nañ dalal xale gis nañ ni taw baa ngi waaj commencé na balaa BFM bi dinañ delluwaat si centre yi pour xool seen anam bu fekkee ne nag jar na ñu délocaliser parce que conditions yi ak taw bi indi na yeneen mandarga yoo xam ne war nañ leen mën a toxal dinañ ko def waaye pour le moment suñ xel dal na ci anam centre pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan préfet bu Dakar daal dina tere rassemblement bi nga xamante ne coalition Yewwi Askan bi moo ko wooteeti ni ki ëllëg ci àjuma ji Mortala Tine nee na euh, daal da ci am ay menaces de trouble à l'ordre public ak it euh, daal di violer article L61 bu code électoral bi euh, coalition Yewwi Askan bi nag ne loolu préfet bi day wax lu ko neex rek waaye ñoom par force dana ñu amal seen rassemblement boobule ñoom ñi leaders yi nga xamante ne dañ doon amal ab ndajeek taskatu xibaar yi ni ki démb nee nañu motif yi nga xamante ni daal moom la préfet bi avancé ba bëgg a tere seen marche boobu motif yooyu tegewul ci euh, luy yoo te tegewul ci yoon Ousmane Sonko xibaar na ne dana kalaame ci yoon procureur de la république mi méngale seen rassemblement gawoon keroog ne ab insurrection euh, ba tax na euh, daal ndaxte nee na manifestation ba am na ba ba muy jeex nemmeekuñu ci benn gàkk-gàkk usman Sonko ak Ibrahima Diame. il faut yeewi askan bi déposer une plainte contre le procureur parce que ñu def manifestation ay une semaine coow amul dara amul nga toog ba tey nga ñu suñu manifestation boobu insurrection la woon est-ce que procureur bopp bi yur bi normal la ñu def seen manifestation une semaine plus tard dara yëngatuwul pétard sax dégguñu ko nga jékki-jékki inventé say ay histoire ne manifestation bi insurrection la woon ana les signes de l' kan la ñu xeexal fan la ñu dem est ce que dañoo déloger palais est ce ana ana signe insurrection loolu mu ñu jiñ nag on va déposer on va demander à nos de préparer on va déposer une plainte contre parce que toog yor fonction rek foog ni lu ne mën ko teg ci ci dafa yomb procureur waxul dëgg waxul dëgg xam na ni insurrection amul te nous l'interpellons personnellement parce que dafa am loo xam ne nit su koy def mun nañ ne c'est des actes et des propos détachables de sa fonction fonction procureur du lii li mu wax tey politique la bu ñu waxee loolu ba pare nag dañuy wax sénégalais yëpp que suñu manifestation gannaaw ëllëg maintenir nañ ko duñ ci changer lu toll ni tarfata ay manifestation maintenir nañ ko duñ ci changer tarfata ay man dama ne sax est waruñu koo dem defi place de l' indépendance dinañ def suñu manifestation incha allah boobu li ma bëgg sénégalais yi xam gis nga li ñuy xeex nii du ay poste yu bëgg kon lan mooy poste député ñun xeexuñu pour poste mais principe la ñuy xeexal mooy lii suñ ko nangulee Macky dañu xam ni c'est fini ci Sénégal ñaareel bi mooy mu tegaat ci nag ne les libertés dama koy confisquer ma fàttali ni Macky 2011 dafa ne l'affrontement est inévitable ça va se jouer dans la rue j'invite le peuple sénégalais à sortir il y pas d'autorisation chaque jour ñu ngi woon place ministre il y a pas d'autorisation li may wax Macky mooy ça se jouera dans la rue et moi j'appelle tous les sénégalais à sortir dans la rue. mu nekkoon kàddu yu Ousmane Sonko ndaw yi féetee ci coalition euh, nguur gi waa Benno Bokk Yaakaar ñoom tontu na ñooñu euh, leader yooyu ñoom ñu ngi ñaawlu nag euh, seen réaction seen taxawaay taxawaay euh, bañ a sàmmonte neenu ak article L bu code électoral bi ndaw yooyu ci kaddu El Hadj Malick Diop ñu ngi sàkku ngir rek ñu respecté constitution bi respecté tamit institution bu réew mi euh, ñoom nee ñu nag euh, dootuñu nangu benn yoon ñu lay xoqatal wala boog ñuy yëkkati kaddu yu ñaaw di ko teg ci kaw njiit réew mi El Hadj Malick Diop responsable jeune Benno Bokk Yaakaar ca département wu Dagana kàddu yu mu dénk Mamadou Diagne. li ñu fisige tey mooy le comportement yi réew bi c'est pas normal mun leen wax tey lii suba ngeen wax leen daa yi xamu leen ngeen di taxaw ku mel ni Khalifa Sall amoon nañ ci moom benn gis-gis mais toujours fu ñu koy xaar du fa dal topp des jeunes yi nga xam ne ay booy ñu lay manipuler di dugal ci nga xam ni doon sax sa jukk nan ngeen di taxawee pour violer l'article L61 di code électoral c'est-à-dire da bëgg a dem ci élection yi da ngeen ci code électoral mais kii respecté woo sa nga xam ne président Macky defar na ñu bëgg ko yàq ñun jeunesse bu benn bëgg ko euh, ñu ngi artu langum politique bi politiciens yi rawatina yi nga xamante ni daal dañoo bëgg a mettre danger fii ci euh, réew mi euh, ñoom nag euh, li ñuy gën a ñaawlu moo di comportement yi nga xamante ni laluwul ci lu tege ci yoon yenn invective yi saagawante xasante gi ñu ne meeku ci géewum politique bi loole lañuy ñaawlu ñu ne nag loolu nañu ko fexe gaa bàyyi nu mu gën a gaawee ndax dafay indi ay gàllankoor ci dëkkandoo gu rafet gi ñu xamee Sénégal groupe national kàddu yu mag ne daal histoire Sénégal ba fii mu ngi dox. te ba euh, bu gannaaw élection yi fanweeri fan ak weeru juillet it fanweeri fan ak benn ci weeru juillet Sénégal day wéy di dox kon jaadu na ñu rafetal toogaay bi euh, ci euh, penc mi. ndaw yi nag waruñu nangu benn yoon ñu leen di utiliser ngir xeexuma politique loolu moom mooy kàddu yi mooy li tukkee ci ndaje goo xamante ni daal ñu ngi ko doon amal fële ca Thiès ay juriste ak ay organisation yu bokk ci société civile ñoo ko doon amal ñu ne jot na ngir xale yi gën a gën a jàng wàllum politique xam lu mu ci lan la lalu dëggantaan rawatina processus électoral bi Cheikh Anta ay professeur ñu seen xam-xam màcc lu jëm ci wàllu processus électoral ay organisation société civile dëkkoon fii ci diwaanu Thiès daje woon ak ndaw ñu jóge woon ci daanaka ci région yépp ci réew mi. doon waxtaan ak ñoom ci njariñu élection législative yi ñu jub si ak ban taxawaay la ci ndaw ñi war a am ndaw ñi ne ñu ci bëri de wax nañ li nekk seen dënn nee nañ li leen metti mooy yenn ci politiciens yi ni ñuy jël ndaw ñi di leen def ay bouclier ngir ñu leen di xeexal ak a wax wax ju ñaaw Pape Mbaye Sall moom moo yor kàddu ndaw ñi suñu xol lañ ko jubee wax ko ndaw ñi ñun ñëpp wax ko suñuy moroomu ndaw yenn politiciens yi jàpp nañ ñoom ñoo war a doon seen bras armé waruñoo doon bras armé wu kenn jeunesse bi dafa war a doon benn jeunesse bu sen benn jeunesse boo xam day participer activement lors de ces élections élections yi passé wane na ni fort taux de participation des jeunes am na jeunes jël seen carte dem voté ji mais woote ay violence woote ay xeex ci mbedd bi dara jaru ko donc jeunesse bi ñoo war a xam loolu te yaakaar naa ne xam nañ ko ndax madame Ndioro Ndiaye moom moo jiite alliance leadership ak développement ci organisation internationale de la francophonie nee na lii de lu ñu nemmeeku la ci réew mi ba tax na ndaw ñi ñoo war a am seen fulay bokk ci dëgg di nga wax li nga soxla te doo doo doo mer te doo moo taxoon ñu ne eh, kii euh, organisation bëgg ñu créer des zones de sax mi ngi sàkku nag ci chef de parti politique yi ñu jël ndaw ñi yóbbu leen ci école yi nga xamante ne dañ koy jagleel formation ngir ñu tàggat ndaw ñi ci wàllu politique RFM Thiès Cheikh Anta RFI. RFI Sport. sport beeg Cheikh Tidiane Diagne Cheikh gannaaw ba la nuyoo wàllu euh, football ngay tàmbali. wàllu football moom lañ koy door rek lii di euh, coupe du Sénégal ci wàllu senior yi affiche finale bi nag xam nañ ko diggante étoile Lusitana lay daal di doon di club national ak Casa Sport bu Ziguinchor euh, di club bu Ligue 1 jël li nga xam ne moo di championnat ba pare bëgg ci teg li nga xamante ni daal moom moo di coupe du Sénégal fàttali sax Casa Sport bu Ziguinchor sa Ziguinchor waa Casa ñoom ñoo ci daal di amal ci benn seen digg ak ñi di waa AJEL bu Rufisque di club national euh, doomu tënk ci nag ñoom ñoo njëkk a dugal ci ndorteelu jongante gi première minute seen bit ko ko dugal moo di Baba Cissé waaye doomu Ziguinchor nag jot nañoo égaliser ci arrêt de jeu première période seen bit ko ko dugal moo di Alassane Faye laata euh, kii di Lamine Jarju di euh, dugal bit bi nga xamante ni moom moo mujj permettre Casa Sport bu Ziguinchor daal di am ndam ci diggante mag ñi di waa AJEL bu Rufisque moom sax itam ci la daal di dugal bu Sénégal waaye lu ñuul la ci sow mi moo di démb nag amoon na ay scène de violence yu bëri foofu la ca stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor diggante ñaari équipe yi la dañ ciy daal di déglu kii di président bu Casa Sport bu Ziguinchor di Seydou Sané eh, gannaaw kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko yëkkati na ko kon boog ci micro Ba. bu ñu ñëwee tey war a daje ak équipe bu ñoo agel fii sor mais bi ñu ñëwee nag ñu commencé tuur ndox tuur xam nga saafara xam nga lan ak poudre ci terrain bi ñu ne suñu joueurs yi na ngeen dal loolu bu leen topp ci loolu provocation la parce que tey ñun mu ñu nangu loolu parce que Casa ko xam Casa xam naa ni c'est une équipe fair play du moo tax ñu dem bi Abuja kaf jox ñu prix boobu moo am ci biir jeu bi sax ñu dem di sandi ay affaire si biir quinze joueurs suñu joueurs yi ñoom ñoo mënoon dañu commencé rek ñu dugal benn bi mais loolu taxul suñu joueurs yi xaddi dañu am mental bu fort bay ba dernier parti nag ñu jël deuxième but bi le bu match bi jeexee nag seen capitaine jël chaise ñëw dóor ko ci bopp Ansu Jaaju mu nekk suñu suñu entraîneur loolu indi tey ñu yóbbu Ansu euh, hôpital ñu ñaaw bopp bi te loolu rafetul image bu ñaaw la si football Sénégal waruñu am waruñu dem ba toll ci loolu parce que Casa tey champion la te ñëpp xam nañu Casa du mel Casa kenn mus ko dëgg si xeex keroog bi ñu demee euh, Ibama Jaraaf gagné nañu mais ñun ñëpp ñu ànd fecc ak waa Jaraaf. est-ce ñun am nañu ay blessé policiers yi tamit am nañu ay blessé mais damay dem tamit euh, fu ñu nekk noonu dem xool leen dalal leen bu dee tamit am na lu ñu mën a def si blessé yi nga xam ne waa AGEL lañu ñu jàppale leen euh, mun leen yóbbu hôpital wala ñu mun leen trouver solution bi nga xam ne dañ leen di faj. di jéggalu ci ñàkk déglu itam waa AGEL yu tëngëj yooyu la nga xamante ni ñoom itam euh, scène de violence yooyu dafa daal di dal seen kaw gannaaw jafe-jafe yi nga xamante ni démb nemmeeku nañ ko foofu la ci stade Aline Sitoé Diatta bu maanaam daal danañ ci dellu incha mën a am seen version ngir tëddee njaaxaanaay ni ñu koy waxee ba tey ci lu jëm ci li nga xamante ni moo di euh, demi-finale Coupe du Sénégal ni ki démb yi tamit fii ni ci Ndakaaru Étoile Lusitana moom moo fi daal di daan Linguère bu Saint-Louis ñaari bal ci benn Étoile Lusitana nag ab centre de formation la nekk fii nii ci Guédiawaye ñoom gulet itam ñuy daal di qualifié ci li nga xam te ne moo final coupe du Sénégal ñoom ñii di évoluer ci wàllu euh, national bi démb nag ñaari bal benn seen diggante ak Linguère Saint-Louis moom moo njëkk a dugal pour euh, étoile Lusitana cinq minutes de jeu Souleymane Cissé daal di égaliser vingt cinq minutes de jeu waaye ki di Oumar Nying moom jot naa dugal contre son camp euh, du jour Linguère soixante de jeu loolu na nga xam te ni. ñoo di waa euh, Casa Sport bu Ziguinchor gannaaw ba match bi yéex nag kii di seen entraîneur di Elimane nga jot naa yëkkati ay kaddu ci micro Moustapha daal dina rafetlu ndam bi nga xam te ne am na ko démb ci diggante mag Linguère bu Saint-Louis tey kontaan naa trop parce que kontaante bi du dara lu dul xale yi mayor yor ba fa dëgg yàlla si tournoi bi yëpp dañu wane loo xamante ne lii bettu ñu de parce que li ñu wane woon xamoon nañ ne ñun dans un bon jour man nañu gañe ku ne ñun loolu on le savait moo tax ñoom dama leen di encourager di leen féliciter bu baax si li ñu def nii quoi waaw. gis nañ match bi yombul bi yombul surtout début bi xam nga début boo gis rek xale yi daan xaloon a crispé il fallait que crispation boobu si 30 minutes mu dem ñu libérer. libéré wu donc bi ñu libéré woo gis nga ça s'est bien passé gis nga après gis nga ñu déroulé un jeu un jeu boo xamante ne wax dëgg yàlla vers la fin waroon nañu scorer. nan ngeen préparé final bi. ah je crois que comme ni ñu préparé match yi passé rek en sérénité d'abord sérénité en dal calme aussi voilà dañuy dem utiwaat. comme ni ñu doon ute ni mais nag def si fulla ak fayda pour jël coupe bi waaw. ci lu jëm nag ci jënd ak jaayum jour yi maanaam transfert yi kii di Abdoulaye Ndiaye moom dañu ko daal di abal équipe bi nga xam te ne moom di Bastia doomu Sénégal nekkoon fii nii ci Dakar Sacré-Cœur di ab défenseur ñoo ko moom waaye dal nañ ko àll maanaam Bastia euh, sans option d'achat euh, d'achat euh, jàppale nag moom Bastia ñu ngi évoluer ci Ligue 2 bu France Abdoulaye Ndiaye na ma ko waxee. moom nag daal na am lu tollook ñaar fukki at jot na euh, àgg ca Lyon ba ñu ko recruter ci atum 2020 daal di baw fii nii ci Dakar Sacré-Cœur jot naa football lu tollook fukki match ak juróom ak réserve bu équipe bu Lyon ci national 2 bu loolu weesoo Barthélemy ñu daal di waxtaane wàllu football ci jigéen yi ak lii di wàccaay Coupe d'Afrique des Nations bu ñu jagleel jigéen yooyu la ca Maroc ci weeru juillet lañ koy daal di amal Sénégal nag dana ca bokk ñoom ñu ngi ci wàccaay gi ndax démb nga woon foofu la ci Douala ca Cameroun doon amal jongante xaritoo seen digg ak ñi di waa Cameroun ndam demul ndam dikul ku ci nekk jot naa dugal moromam ñaari but Sénégal sax daanaka euh, ci njeexitalu jongante gi la waa Cameroun na dal di rattrapé gannaaw bu mu jeexee itam euh, ñi nga xam te ñoo de entraîneur yeeg ñu ni mel yëkkati nañu ay kàddu fàttali nag euh, Sénégal moom dana daal di kon bokk soobu ci gile Coupe d'Afrique des Nations. de ci atum de na ma ko waxee ñu nar kaa amal ca weer juillet. Mhm. ca Maroc incha allah. jërëjëf jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne ñu dalal keneen Anna Rocha ci chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi centre Yénénga mu ngi euh, dalal atum 2021 ak léegi promotion euh, bu njëkk mu di euh, ñaar fukk juróom-ñetti ci ay étudiants yoo xam ni ñu ngi leen di tàggat ci lu jëm ci wàllu post production cinématographique maanaam montage image montage son ak mixage waaye itam lii di étalonage mbébétu nag directeur wu centre Yénénga di Alain Gomis mooy fexe daal ñu mën a réaliser ay film te duñ ci soxla loxo bitim réew Alain Gomis. Je pense que nous vivons un moment. où il y am na ay jéego yu bëri yoo xam ne ñi ngi koy def euh, ci wàllum cinématographie fii ci Afrique ndax li nga xam ne ne mooy ubbeeku bi lu leer la rawatina fii ci Sénégal li ñu mënta nangu rek mooy yenn film yi nga xam ne ne euh, ñi ngi koy móol ay ñeneen ñoo xam ne ne nekkuñu ci fii ci continent Afrique di ci dund te loolee mënees naa ci bu baax ndax maa ngi soqeekoo ci lii ñu naan dialogue interculturel waaye moom sa bopp moom lu ñu war a def la. la possibilité d'existence des films. mairie euh, bu euh, Ndakaaru partenaire la mu ngi subventionné jamono yi lu tollook euh, ci fukki million ci suñu koppar ci projet bi lee bëgg na wëyal partenariat boobule gën ci dugal loxoom ñu déglu ci Mactar Diaw di directeur de la culture et du tourisme foofee ca villu Ndakaaru. dama ne lépp lu ñu mën a def muy cinéma ci biir Ndakaaru suñu ligne de mire mooy centre Yenenga bu Grand Dakar. mais il faut que vous soyez ouverts le centre là appartient à toute la ville de Dakar en matière cinématographique mooy Alain ngi def liggéey bu rafet moo waral état du Sénégal vraiment ville de Dakar jàppal ñi parce qu'ils on une subvention annuelle de la ville de Dakar maa ngi leen di waxal léegi je ferai tout devant le maire pour qu'on ngir fexe nag ba étudiants yi ñoom ñu mën a continuer euh, seeni euh, formation te duñu euh, bàyyi jàng bi ministère de la culture moom daf leen bëgg a accompagner ci wàllu prise en charge bi maanaam fexe ba ñu mën a am ay bourse ndax jamono yi kenn ci ñoom amagul bourse ñu déglu ci Demba fay di euh, directeur cabinet ministre de la culture. il est certain que le centre li ko tax a jóg moo di kon fexe ba ñëpp mën a jote ji ci cinéma bi loolu sax moo tax ba formation bu première promotion étudiants yi dañ ko yombalal amul fay dara waaye nag ngir ñu mën a nekk ci ay conditions études yu baax te mucc ayib faaw ñu gën ñoo jox ay jumtukaay euh, ak nag euh, yoo xam si. dinañ ko mën a jëlee ci partenariat bu ñuy am lu ci mën di am daal eh, ci ministère de la culture moom dinañ ko bàyyi xel bu baax a baax su ko defee ñu def suñ kemtulaay kàttan ba étudiants yi mën a nekk ci nekkin gu mucc ayib. des de vie des étudiants par le FOPICA. mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar ñeel aada ci RFM. NSIA santé famille wér-wérle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 jërë ngeen jëf Ousmane Kabiline Diatta mi ñu fi jàppoon bu yàggul lañu doon njoxtu ci moom moo am waa ji ab rebelle la bu bokk ci FIP MFDC yi procureur de la république bu tribunalum Ndakaaru moo ko dëggal ubbil yéenekaay bi juróom-ñetti fan ci ci la ko sandarma yi jàppoon procureur Amady Diouf def ab conférence démb leeral ne Ousmane Kabiline Diatta nit la ko danseur nit la koo xam ne menace la ci jàmmi réew mi ci dalug réew mi ak ci kaarangeek moo ko taxoon a jóg ba indi fi ay trouble politique yu garaaw ñoo ngi ko koy tuumaal moom Ousmane Kabiline Diatta mbayum yamba ak trafiqué yamba fa mu jaar ba fu mu yegg si tey moom rebelle bi l'observateur nee nañu procureur bi leeral na ko démb ba waxit ne ab dossier mën nga léegi ca loxoy doyen des juges source waa nañu bu ñu sukkandikoo ci nataal di porter rebot bi nga xam ne procureur de la république def na ko ci Ousmane Kabiline Diatta liñ ci mën tënkee moo di kii di Kabiline Diatta ab moosul dëgg la procureur bi nee nañu manifestation rebelle yaa ngi ci ngelaw li fipp yaa ngi ci dëkk bi lise ko wax ñu ne bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi procureur de république Amady Diouf joxe na ko démb ci Ousmane Kabiline Diatta liñ ci mën a wax moo di Sénégal dafa rëcc musiba mu rëy moo fi naroon a am moom waa ji di Kabiline Diatta procureur nee na ko ràññeeku la ci jàppante yi fi woon bu yàggul ci diggante soldaar yi Sénégal yi ak fippi MFDC yi barakaas yi doon am fan yi ca Casamance ab loxom génnu ci nee képp ku taq ci yëf yi moo xam directement wala indirectement yoon dana la wër ba gis la daal ci sa kaw amul ma sàmba amul ma demb le quotidien nañu procureur bi génn na démb wax ci mbiri Ousmane Kabiline Diatta di rebelle bi ñu jàppoon bu yàggul fii ci Ndakaaru nee li ko fi indi woon moo di dafa joxante woon daje ak yeneeni élément yu MFDC bëggoon a caxat-caxatee dëkk bi nasaxal nit ñi ak seenu karange Ousmane Kabiline Diatta mooy bras armé bu làccu rebelle yi Paul Bassène jiite ubbi nañu ab information judiciaire ci moom Kabiline Diatta ak ñi daw te bëggoon a ànd ak moom bëggoon a teg ay complot ngir fexel ay autorités yu nekk ci la république def démb leeral na it fi gendarme Assane nee na sa am na yeneeni élément MFDC yu ñëwoon Ndakaaru bëggoon bokk ci manifestation bi opposition bi doon amal keroog juróom-ñetti fan ci weeru juin ca place Obélisque direct news di laaj ndax du kii di Ousmane Sonko le procureur de la République di visé Ousmane Sonko ne ñu ci yéenekaay bi pare nañu ci seen complot viol yi léegi nag ñoo ngi jéemaat beneenub complot ak ay waxi rebelle yi ñu jàpp ci dëkk bi Sonko ne bu procureur bi taxawee ne amuluk i place obélisque sud quotidien xëy na di ñu xamal ci xët mu njëkk ne préfet bu ndakaaru tere na ko nee na leen bu ñu ko defee dafay xëtt article L61 bu code électoral bi te it mën naa turbale ordre public bi waaye waaye yeewi askan wi nee nañu waxi préfet yooyee mënu a tere def seen manifestation bi Khalifa Sall ak compagnie nee nañu waxi préfet bi wax la ju taxawul lëttee mu ñu nañu waaye yeewi askan wi ak waa wàllu Sénégal fa ñu yéenee dellu gannaaw ci seen manifestation bi ñu bëgg def suba ci la nation les économies résistance ak mobilisation la yeewi woote woote législatif yi war am ci mi fan ak benn ci weeru sulet ndax dee su ko reporté maanaam dàq ko laaj la bu enquête dina kay xëy samp ci xëtamu njëkk